mooy ñaari yëf yi nuy bëgg a tudd suñ borom danoo bind sàkkal ñu aw yoon yoon wi ñaari yëf wër ko muy ndigal tere ndigal tere ndigal nag kenn rekk ko moom boo déggu ndigalam ndigalal koo mën a dégg loolu lu amal njëriñ tere itam kenn képp ko moom boo nanguwut a bàyyi lam la tere lu la sa morom tere nga bàyyi ko du la amal benn njëriñ ñu ñëw ci loolu tëjee ko moo tax seytaane day xëccoo ñaar yooyu ak boromam subhanahu wa taala jamono bu nekk mbokki jullit ñi ifal wala tafal ñaar yooyu képpay defaru loxol doomu aadama defaru dootu mën a yàq lum àgg da koy defar yaakaar naa ñi defaru ci kaw suuf ka ca gën a defaru mooy ab yonentu gannaawub yonentu ka ci gën a defaru mooy ka gën a topp yonentu ka gën a roy ab yonentu sallallahu alayhi wa sallam ki gën a defaru ci jaamu yàlla yi subhanahu wa lu may ñaar ñooñu defaru googu muy yonentu beeg ki ko topp di ko roy respecté ñaar yi suñ borom képp la ñuy déglu ci suufam si mu naan leen def leen bu leen def lu mu leen def loo la ñuy def lu mu leen baloo ñu ba moo tax xeetu bokkaale gi gën a rëy ci kaw suuf mbokk yi bokkaale yi gën a rëy ñi koy lim buñ koy lim dañ ciy boole bi ñaar yi defal baal waroo cee boole yàlla kenn moo tax njuumte lu rëy rëy rëy la nga dib jullit am keneen ku naan la defal ku dul sa borom am keneen ku naan la bul def ku dul sa borom njuumte gënu ko màgg bokkaale gënu ko rëy bokkaale googu nag exactement moom la dund lu yàqu tey ci kaw suuf loolu la moo tax yonent yi salawatullahi wasalaamu alayhim ajmain buñ ñëwaan gis nga inna arsalnaaka bil xaqi lu ci teg bashiran wa nadiran dañ daan bégal nit ñi ci yoon wi ñu leen andil naan leen fii la yoon wii la ñëw leen ci topp seen borom jubóog seen borom am ngërëmam am jàmm am xéewal yi ba pare nag teg ci naziran nan leen moytandiku loon yoon wii ma leen fekkoon ngeen ko doon dund yee la lënk danañ woote ba seen woote jeex ñoom yonent yi ba seen woote jeex doo ci mosa dégg benn yonentu bu mos a toog ak ay taalubeem naan leen yéen de ci topp yàlla àgg ngeen ci foo xam ne ah fi ne noppal nañ leen ci liñ leen daan tere mën ngeen koo def léegi doo ko mës a dégg ci waxu ab yonent te te seen taalibe ya leen daan topp nag ak koo mën a doon ñoo gën say taalibe ak koo mën a doon martaba boo mën a am ci diina nee nga taalibe yi la wër taalibe yi waroon yonent bee gën say taalibe loolu genn anam la ñaareelu anam gi yow it sa martaba nu mu mën a toll buñ ko jëlee gam-gamle ko ak martabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkoon ne jëmm la ju taxaw day naan ko àgguloo ko ca wëq wa maanaam àgguloo ko ca dojoor ba ak koo mën a doon sa martaba ni jëmm ji sutee dojoor bi bopp bi ni mu sutee dojoor bi nu ko raw la martabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sutee martaba bépp wëli yu buy feeñati ci xeet bi ñu ñëw nag ci loolu ne comme noonu la mbir mi demee ndax kon ndeem yonentu booba sutee la nii ci martaba mosta ñemee seetaan ay taalubeem ci ci mooy yàlla déedéet saa yu mooy yàlla da cee daal di wax waaye itam mosta ñemee gis kuy mooy yàlla mu di ko ko tuutalal ba naan ko sax mën nga cee nekk ndax man mii sa sëriñ sama martaba nii la toll ëllëg maa lay yóbbuwaale ndax moom noonu la toll woon ndax martaba bu rëy booba sutee nii suñu martabaay wali yi lu mu amutoon suñu martabaay wali yi danañ ko mën a am déedéet wax bi loolu dong la wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi